woon ma Serif Sarr eh, Serif Sarr woon ma Serif Sarr téema eh, yo Serif Sarr Serif Sarr téema yo Serif Sarr Serif Sarr téema yo Serif ëbbalo bi mbër bëre waaye ku daan waat ku gis sa gaynde waat waaye ku yëy bukki yéy nga yëqu yëy bu ne am na rab rabu Kaolack mboo sa kumba jigéen ndar maam kumba bang Dakar la daawul Gambi mayta waaye karman abu cuba la yaay rabam de yow la nopp ba suba waa ndeysaan am maa ko wayal woon ma Serif Sarr Serif Sarr woon ma Serif Sarr téemaa yo Serif Sarr Serif Sarr téemaa yo Serif Sarr Serif Sarr téemaa yo Serif débi Serif Sarr téemaa yo Serif Serif eh yo di ma rok di ma ma rok kataaye naa ni jam yo di ma rok di ma ma rok kataaye naa ni jam yo di ma rok di ma ma rok kataaye naa ni jam abu jaba na tuma dungel saare mama sambare wuro ɓanndi muuse e ala wa kalamu cuballo to wa gallamu cuballo goni mbimi e nawtuma duungel lolma baba saro nawtuma duungel saare mama maaro abu cubbalo cubbalo bi mbër bëre waaye ku daan waat ku gis sa gaynde waaw waaye ku yëy yàq bukki yée nga yàqu yëy kat dëkk bu ne am na rab rabu Kaolack mboo sa kumba jigéen ndar maam kumba bang Dakar la daawul Gambi mayta waaye Karama abu suba la yaay rabam de yow la nopp suba. Thierno. waa ndeysaan am. waaw. bu sonn ci bàyyi ko naay. nika. dafa sonn ci papaam. papaam da ko jaral lu ne. papaam da ko jaral lu ne. amu ci benn complexe. amu ci benn complexe. lu lekk bàyyi bàyyam. lu lekk bàyyi bàyyam. lu lekk du naay. Vas-y, danse. Wool ma Serif Sarr Serif Sarr wool ma Serif Sarr téema yo Serif Sarr Serif Sarr téema yo Serif Sarr tuungel saare maama ma notumaa tuungel bi mbër bëre ku daan waat ku gis sa gaynde waaw waaye ku yëy yëq bukki yée nga yëqu bu ne am na rab rabu Kaolack mboota kumba jigéen ndar maam kumba bang Dakar la daawul Gambi mayta waaye karman abu cuba la yaay rabam de yow la nopp suba waa ndeysaan am